Euh, da ngay hérité euh, réew boo xam ne euh, Covid bi dafa la gestion de la pandémie dafa mettre à mal euh, notre économie et nos plans d'investissement nga ñu yokk ci tey une crise politique boo xam ne réew mi dund na ko bu placer le Sénégal dans le lot des pays à risque Euh, ndax dernièrement sax la mobilisation des recettes à l'international auprès des PTF dafa poser problème euh, les notations du Sénégal se sont se sont fortement dégradées euh, dañ doon wax ay B plus pour beaucoup d'agences de notation tey ñu ngi ci B li nga xam ne moom mooy le budget d'investissement wàññeeku na bu baax a baax dette bi mu ngi mu ngi yéeg Euh, déficit budgétaire bi yéen a ngi xeex pour ramener ko d'ici à deux mille vingt cinq à trois virgule cinq pour cent là yéen a ngi ci euh, cinq pour cent exploitation gaz et pétrole bi waroon démarrer deux mille vingt quatre waroon na ñëw permettre gouvernement bi souffler tuuti am de recherches additionnelles euh, repousser waat nañu ko mu nekk un tableau clinique un peu économiquement un peu inquiétant nekkoon nga. ministre des finances alors diagnostic bi euh, dañ ko exagéré wala c'est un diagnostic bien justifié non situation mënul bañ a jafe ndax boo xoolee li jaar ci àdduna bi depuis 2019 daanaka réew yëpp dañoo bokk àtte euh, après 2019 crise Covid bi dafa ñëw économie yëpp daanaka dañoo xaw a euh, mën naa wax dañoo daanu globalement or bu économie daanu balaa muy jógaat souvent ça prend du temps ça c'est la mooy li ma mën njëkk a wax maintenant rax ci dooli Sénégal ñu am euh, période boo xam ni effectivement il y beaucoup de tensions en interne en tout cas ou du moins euh, ni ñuy communiquer ci tension bi dafay tiital ñu bari daa nga fi dégg ay bës yoo xam ni lii dafa am convocation dafa am boo xëyee doo gis kenn ci mbedd mi mais ça day am impact économique effectivement loolu doon na loo xamante ni tey jii effectivement lu xaw a jafe la njëg yi yokku avec la guerre en Ukraine globalement njëg yëpp dafa yokk dans dans le monde kon situation bi dafa jafe loolu war na tax war na bokk ci li tax réew mi ñu def ci attention bañ ko dénk ay amateur parce que réew mi amul duñu réew mi du ñu xaar ñu nekk fii di régler ay problèmes euh, politiques yoo xam ni xamuñu kañ lay jeex non il faut que ñu jublu ci liggéey bi en tout cas gën cee taxaw euh, nekk ci beneen phase boo xam ni dañuy am jot du ñu wax ni élection yaa ngi ñëw fii ak benn weer wala ñaari weer on dira qu'on a quatre ans ou cinq ans jéem a jublu ci liggéey bi euh, calmer dëkk bi fexe ba nit ñi juboo moo tax toujours je parle de la paix li tax may wax jàmm mooy buñ ko amulee dara du dox bu ko amulee. Euh, dara du dox kon lépp lu mu jar war nañ ko uti ut ay consensus yu fort maintenant futteeku nag liggéey foog ñu foog ñu ñu def ko situation bi mën nañ ko redresser en tout cas man am naa espoir euh, mën naa ko redresser en tout cas li ci ëpp ci 2024 jëm 2025 réew mi mën na delluwaat place am ñu relancer machine bi assez rapidement parce que Sénégal am na capacité yooyu Sénégal am na confiance boobu maintenant c'est vrai que tout dernièrement ñoo fi nekk di xuloo ci suñu biir di wax waxi politique di ŋàññante euh, mu wàññi réew mi buñ ko stabiliser rek ça doit ça va redémarrer. donc ci benn at euh, di en tout cas ci wàllu chiffre ci wàllu données macroéconomiques yi. ah dina améliorer. di nga ah, di nga di dese. Ah, ah, euh, le plafond de la dette. di nga baisser PIB bi. non non di nga yokk croissance di nga di nga relancer croissance xam nga plafond xam nga euh, réew mu nekk bu amee yenn changement yu important comme ay régime euh, politique euh, le régime ne change pas mais en tout cas bu amee un changement important élec mandat bi jeex na il faut aller à un autre dugg ci beneen mandature c'est une c'est des données nouvelles hein qui qui se qui se créent et qui crée la confiance aussi maintenant est-ce que am nañu capacité créer confiance ou no foofu la yëf yi nekk mais une fois que la confiance est rétablie je pense qu'on peut relancer la machine. la confiance rétablie ak nos partenaires techniques et financiers. mais même suñu biir yow il faut que nga ñemee génn ñemee investir or bu ñu nekkee ci campagne électorale bu dul jeex yow sa bopp peut am na loo xam ne bëgg nga ko def yaa ngi xalaat. naa bàyyi ba élection yi passé wallaay ba ma xam li may def mais boo ko defee sa morom def ko ñi nekk bitim réew def ko euh, c'est le pays qui souffre donc il faut que déjà yow nga gën ni yaa ngi ci biir Sénégal sa commence a marcher ñi nekk bitim réew aussi xam ni réew mi mi ngi dem normalement maintenant naturellement am nañu ay politiques qu'on va mettre en œuvre assez rapidement yoo xam ni jàpp naa nii on peut mais xam nga euh, magistère du président la République dafa am liggéey bu am solo bu ñu jagleel wàllu infrastructure yi. Mhm. Euh, ak trans système mu transport bi alors mu doonaat critique bu ñuy euh, formuler ñu bari jàpp ne li ñu def ci infrastructure def ko ci transport def ko ci yenn secteurs yi bu ñu ko defoon ci agriculture ak industrie. dinañu mën a créer emploi dina mën a suuxat réew mi euh, Ablaye Wade euh, c'était les infrastructures Macky Sall lu ñëw renforcer ko dugg ci transport yi euh, dugg ci désenclavement yow lan mooy nekk sa cur fan ngay teg sa curseur u plan de développement économique lu nekk dafa am waxtu woo xam ni mënut a ñàkk imaginez-vous tey bu Sénégal amuloon autoroute bi nan la ñuy déplacé wu ci biir Ndakaaru bu Sénégal amoon autoroute gis nga TER bi on l'a beaucoup critiqué mais xoolal tey TER bi li muy andi en termes de d'efficacité et de gain ci ci ci transport bi mais gis nga loolu bu amulee on a beau parler de développement d'émergence duñu dem fenn boo amul courant foo jëm mais ça ce des investissements lourds et je pense que le président Macky Sall def na ci lu bari c'est ça la vérité aussi def na ci lu bëree bare bëri te mu ci def mënutu woon a ñàkk mu ci def mënutu woon a ñàkk def na ko maintenant il faut continuer sur les infrastructures et financer vraiment tout ce qui concerne le capital humain xam nga ci plan Sénégal émergent daanaka mën nañu wax ni ñetti tànk la fa mel ni cin boo am ñetti tànk transformation structurelle de l'économie mooy li nga xam ni def nañ ko ci ay infrastructure développement au capital humain gis nga transformation structurelle de l'économie def nañ ci ba 65 pour cent année bi ñu koy tàmbali maa doon ministre des finances def nañ ci cinq pour cent boobu ñu ngi doon def ci capital humain vingt cinq pour cent paix et sécurité ñu def ci dix pour cent xam nga ni tey jii fi adduna bi toll paix et sécurité ak gouvernance war nañ def lu ëpp war nañ fa def lu ëpp xam nga ni tey nii suñu population bindoo développement du capital humain war nañ cee def lu ëpp moo tax man ma bëgg ci at bii ñuy jëm concentré wu maintenant ci li jëm ci nit ñi directement le capital humain le capital humain loolu moo tax ma bëgg attaquer les question d'emploi question d'emploi boo koy attaquer da koy attaquer ci réforme parce que du état bi mu mën def lépp mais tey jii am nañu ay tali am nañu courant am nañu ndox ci yenn localité yi localités yooyu neex naa développer neex naa industrialiser wala mën nañ ko industrialiser mais foo amul courant amul amul ndox mënoo fa defi industrie moo ref industrie it foo xam ni euh, boo boo boo fay mënoo fa yóbbu marchandise mënoo ko fa jëlee d'où la question des infrastructures routières et ferroviaires ou ou ou, ou maritimes li tax usines yi nekk autour du port de Dakar parce que mën nga jëndee bitim réew dugal ci sa usine mën nga jëlee ci sa usine yóbbu bitim réew infrastructure yooyu léegi am na kon. lii des moom mooy ñu xool yan réforme la ñuy def pour que a bu amee alal la mën a investir fii waaye it keneen nekk bitim réew moo xam français la moo xam américain la chinois la ou ivoirien la bëgg a investir Sénégal mën ñëw fi investir en toute sécurité quand je parle de réforme de la justice mooy réforme justice man loolu laa gën a xalaat mooy fexe ba ñi nga xam ne dañuy liggéey ci Sénégal ak doomu sénégali gëm ni réew mi lépp lu fi mënti lu loo mënti def ci yoon lay tegu kon sañ naa fee andi sama alal sañ naa fee def nangam parce que loolu moo mën a may doomu Sénégal yi liggéey bu gaaw le potentiel il est là euh, léegi les infrastructures de base li ci ëpp président def na ko en tout cas ci benn façade bi mooy li jógee fii jëm Saint-Louis wala dem ba Kaolack maintenant Sénégal yemul foofu il faut continuer aller le nord continuer aller vers le sud et aller un peu en profondeur aussi vers vers l'est mais en attendant zone yi traversé nga xam ne traversé nañu ko pare foofu il est possible de développer l'agriculture l'élevage le tourisme euh, la pêche enfin bref zone yooyu yëpp lu bari mën na fa dem mais loolu lii tax nga mën ko développer c'est d'abord les réformes lii tax nga mën ko développer mooy instrument financier yi ngay wuti moo tax ma wax la question de la banque boo xam ne dañ fay dajale alalu Sénégal maintenant loolu boo ko amee def ay réformes yi tax entrepreneur mën a ñëw af investisseur mën a ñëw moo xam sénégalais la ou étranger la boo ko defee euh, Sénégal am nañu capacité créer pas moins d'un million d'emplois dans les prochaines années